Aïcha Omar kaddu bokk ci cadre patriotique euh, yu passé fii almaami Ndiaye almaami moom tur wi moom ndar lay dellu. almaami fu ko dégg. Euh, ndar lay ndar lay dellu. waaw parce que am na tur yoo xam ne boo ko déggee daam fu mu lay yóbbu. moom nag euh, bokk na ci cadre passé fii bind programme passé. pour 2024 ci côté santé bi. Mhm. mais sànq bi ma ko waxee avant ñuy dugg dama ne ko mais balaa ngaa naan am da koy ne nekk. parce que il ngeen lijjanti li fi ne ba noppi doo ko wax waxu programme. Mhm. tey jii xel yëpp doonoo dem Ziguinchor actualité bi yëpp foofu la. Ousmane mhm. Sonko mi ngi fa nee na suba du wuy ji takk der yi ñu ngi fa di jaamaarlu xale yi situation bi ñuy dund actuellement te procès Adji Sarr Ousmane Sonko nar kaa indi. situation boobu ban jàngat nga ci def. ñun gisuñu ni Adji Sarr Ousmane Sonko moo ko indi. Sénégal depuis avènement Macky Sall ci réew mi fitna lu mu dëkk parce que moom sax daf ko déclarer réduire l'opposition à sa plus simple expression te loolu c'est une phrase bu anticonstitutionnelle la parce que def naa dëkkuwaay commune vivre de vie en commune dafa laaj ku ne sa ak sa yelleef ñu jox la ko dans les règles de l'art mais bu fekkee article premier suñu constitution sax ki nu jox suñu réew mënu ko sàmmoo muy tous les sénégalais son libres est égaux devant la loi égaux son égaux devant la loi mm-hmm. mënuñu ko respecter donc ñun duñu wax ni fitna bi ci foofu la jóge dossier Adji Sarr mm-hmm. dafa ñëw rek firndeel doxalin bi ne ci réew mi depuis avènement Macky Sall ci réew mi mm-hmm. donc tuddewuñu ko dossier bi moo indi lii mais loolu la ñu mës a dund xam na nañu Sénégal douze ans de fitna la di dund yàlla nañu ci yàlla euh, musal yàlla saafaral nu ko parce que Pastef ku ko xam xam ne Ousmane Sonko wootewul lu dul jàmm ndax souveraineté la woote développement la woote wootewul kaay leen tas wootewul kaay leen yàq donc ñun loolu lañ ciy wax di ñaan nit ñi ñu delloo ci seen xel surtout le président de la république bi nga xamee ne moo nu njaboote ñu koy ñaan fii ñu toog mu xool mu njaboote nu ni mu njabootee Amadou Sall bañ nu fitnaal man dama am camarade boo xamee ni Joma Joma euh, basiru Diomaye fay ku ko xam-xam ni c'est un homme responsable épris de justice et de paix bu nu fekkee tey ñu koy wax ni ma nga ca kaso ba njabootam ñun ñu tumranke donc ñu ngi koy ñaan mu teggi loxo ñooñu ñu mel na ñoom Pape Ndiaye dëkk bi sunu dëkk la Sénégal ñun ñëpp dañu war a ba voilà dañu war a taxaw ba mm-hmm. ñu nekk njaboot il faut mu njaboote nu foog mu considérer nu comme njabootam tant que defu ko partisanisme par partisanerie la ñuy xoole te ñun xoole wuñ ko loolu ñu koy ñaan mu delloo si xelam Ousmane Sonko mu bàyyi ka victime bi mu victime moom mooy dafa am projet pour sénégalais yi loolu tamit ambition la ku nekkal sa réew ñu dàq la ndax ambition bi nga am sénégalais yi Ousmane Sonko bu dul woon ñoom Séné bu woon sénégalais yi Ousmane Sonko du exister sénégalais yi ñoo gis ci boppam ñoo gis seen bopp ci li mu nekkee ñuy ñaan fitna mu baaxul ci réew. Macky Sall sunu président nga ñu lay ñaan solennellement nga bàyyi tous les prisonniers politiques te nga delloo Ousmane Sonko ay droit wam parce que dafay liggéeyal si Ziguinchor dafa war a jot passeport am dafa war a tukki moom déposé na ay plainte plainte am kenn du ko xool Guy Marius Sagna déposé na ay plainte plainte am kenn du ko xool loolu tamit bu amee dootul justice ñi ngi ci par par loo man duma wax comme ñeneen ñi kilifa diine woot kilifa diine yi ay nitu xaqiiqa lañu nitu xaqiiqa sunna tëw tënku la ñooñu ñi ngi ci li nu war a ne ñunu nu respecté lañu ñu ni màggal lañu fii ñun du ñu ñoo xamee ni ku xam ndar-ndar ba dugg ci Ousmane Sonko xam ni ñun élégance la ñuy dawal kilifteef moo nu tax a jóg ñu ngi lay ñaan président de la république nga teg lépp ci suuf Sénégal dellu. mais est-ce que gën woon yomb Ousmane Sonko dem wuy ji rek euh, comme woon ko ci yoon. mu dem wuy ji waaw Ousmane Sonko dafa nekk am daal. Ousmane Sonko. Hmm. xam nga tamit euh, ñamala kaay wuy sa yaay ba nuy xale. ñamala dafa yore paaka. ñu ne kaay wuy sa yaay mu ne sama yaay du ma woowee paaka pour Ousmane Sonko wuy ji yoon. il faut yoon nekk yoon. mais lu dul yoon lan kay woo. lu dul yoon moo mooy ñu njëkk article numéro un de la constitution. nit ñi nekk nu benn ci yoon parce que bu fekkee certificat médical mooy tax ñu disculper nit Ousmane Sonko am na disculper affaire bi foofu la waroon yam section de recherche la waroon yam boo fekkee dangay dem ci procès ña fa toog ñëpp seede nañu ci kanamu yàlla xamoo leen xamunu la ñu ne waa ji li may tuumaal amul ndaw si li muy tuumaal kii amul ndax fekkee nañu bu fekkee docteur bi nga xamee ni ma nga toog ogi ñu indil ka ndaw mu xool ndaw si xool ni dara jotu ko ñu teg ci taabal ji mu indil leen beneen firndeel wan complot d'état yi nga xamee ne rapport gendarmerie firndeel na ko loolu ana procès bu ñuy teg booy teg procès da nga koy teg dafay am lu ñuy wax un faisceau d'indices concordants yoo xamee ne da lay incriminer mais loolu amul ci dossier bi donc justice bu ko kenn politiser li politisation de la justice la mais c'est pas la justice loolu moo tax vraiment ñun ñu ngi encouragé suñu président Ousmane Sonko tey kay tey rafetlu posture am parce que c'est un démocrate constitution bi moo mayee ni bu ñu la tegee lu dul yoon am nga droit à la résistance yoon ñépp ci bokk yam bu fekkee dafa am kumba am ndey am kumba amul ndey loolu ñu ngi koy déplorer te di ñaan Macky Sall mu xoolaat boppam njabootenu nanu def encore une fois na Amadou Sall loolu rek la ñaan. Mm-hmm. waaw bon dégg naa la bon nga wax ñaari yoon ñaan président de la république pour mu deltu ginnaaw teg dossier bi euh, ci suuf parce que gis nga ni dossier bi nekkul dossier boo xamante ni euh, bu lool la euh, est-ce que tamit tey parce que bu ma déggee loolu est-ce que tey ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Ousmane Sonko. yéen it lu tere ngeen ñaan ko mu dem wuy ji dialogue ba. waaw jaloog bi. Euh, dafa am ñaari dimension yu nu war a fàttaliku lu yu war a fàttaliku ci ci dialogue bi. Hmm. dafa amoon deux mille seize dialogue. am deux mille dix neuf dialogue. mais mbir boo ci nekkee dangay ngay Sénégal bu ñu doon évaluer politique publique yi. Hmm. mais dañuy jubbanti li fi ne. léegi ñun pareeguñu ci évaluer loolu di dem ci leneen maanaam euh, réew. Hmm. ay tex maanaam ñun ñoo dajaloo ni dañuy dund. dajaloo bi texte moo koy régir. Mm. bu nu dawalee texte yi kenn du woo kenn kenn du woo kenn ci ginnaaw askan wi. Mm. la ñuy jëmmale ay yëgoo yoo xamee ni bokkul ak dara yoon parce que bu ñun ñëpp sukkandoo ci yoon mm. Sénégal dina dox àqu ñëpp ñu se ñu ak yelleef yi ñu respecté ko te kenn du dialogué. mais instant li mu bëgg a wax mooy ñaar bu ñu seqee dara di ko xëccoo il faut kenn bàyyi dara. pour que waxtaan mën a am est-ce que egguñu ci niveau boo xam ne nguur gi war na bàyyi dara pour man jaay doole gi moom du jur lu dul mais tamit bañ gi muy bañ tamit mun na jur fitna mais moom bàyyi dara nguur gi bàyyi dara te loolu jaragloog moo mën a réglé est-ce que waruñu egg ci niveau boobu ku ne bàyyi dara ñu toog waxtaan. xam nga Ousmane Sonko moo njëkk bàyyi dara bu nu fàttalikoo ba Covid bi ñëwee Ousmane Sonko dafa dem teg li muy teg lépp ci suuf mais loolu waroon na may président de la république monsieur Ousmane Sonko c' est une opportunité pour le c' est un patrimoine national Ousmane Sonko dañu war a euh, ñun sénégalais ci boppam dañu war a rafetlu ay ay ñëwam ci président de la république président ci boppam moo war a am maanaam sincérité ak intention ca gannaaw mu wane ni moom li muy jiite. ñëpp la tollale daf nu njaboote parce que man dama am benn professeur boo xamee ne dafa nekkoon France sengoor demoon fa woo ko ni dama bëggoon nga ñëw jàppale ma Sénégal mu bàyyi lépp lu mu doon def France ñëw ci bureau méthode ak organisation moom ba ni formé dafa ni yàlla kat lu tax mu teg njiit ci kanam ñaari nit mbir moo tax yërmande ak njëriñ amoo yërmande ci Ousmane sonkoo amoo njëriñam waa léegi kooku nan la lay wuyoo <laughs> ñun loolu rek lañ koy laaj. ñun on est de bu bu bu suba bu bu nu nekkoon ci démb nguur la ñuy wax mais tey nekkuñu ci nguur. léegi bànqaasu nekkinu askan bi la nekk. léegi léegi man euh, li may waxaat mooy mooy tey boo xoolee certificat médical euh, setal na. Mm -hmm. euh, témoin yi ki nga xam ni mooy capitaine Touré la mu wax. Mhm. ki nga xam ni mooy Ndeye Khady la mu wax. est-ce que gënul woon yomb Ousmane Sonko dem ci li nga xamante ni mooy procès bi parce que bu boobaa ginnaaw kële moom boobu ba ndëgën ba mu waxee ba nga ni amul dara luy firndeel mbiram est-ce que dem bu demoon foofu mën nañoo génne lenn loo xam ne bi Sénégalais yi mën nañoo gëm. ni waaw saa kon fu ñuy teg yoon. cest à man droit laa def. waaw faisceau faisceau d'indices concordante mooy tax mooy tax mbir mi yegg fa mbaxane doonee benn. mais kon gendarmerie lan lan lay wut ci c'est-à-dire processus. loolu moom jaaxal na moom processus dafa am. man kay dama lay laaj question bu ma jaaxal. sama voilà maanaam nit mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo ni ëmb naa. Hmm. wax ci Sénégal yépp hmm. diw. moo ma indil ñaari fetal. ëmbal ma. te ah. ba léegi mënuñu gis yoon. Ah, te ñaari at léegi ba tey waa léegi nag lu lu ñuy def ci loolu. donc Sandiogou kuy woote loolu. fitna rek nga bëgg. <laughs> fitna rek lay woote. loolu nan ko teg ci suuf. Hmm. naka sunu sëriñ. Hmm. sëñ sii Sidi euh, sëñ mun euh, Muntaxa ñaane woon. ñu teg lépp ci suuf mais da ngay daan mbër mu ne leeru parce que nii ak nii est-ce que nekkul ni bii mooy yenn ba ca kaw dóor ci suuf. yoon yoon yoon kenn du ko laam-laamee. Ah. yoon. kenn buñ ko commencé lam laamee rek mën nga daan daan mbër mu dem seen ñu ëpp la tour ñu ne way daanu daan daanoo ko moo la daan waa xam yëkkati jël ba jox la est-ce que tey jii fi mu toll nii ginnaaw moom askan wi moom aperçu bi ñu ci am mooy eh, kii moom daanu na ba noppi léegi est-ce que bu demee ci yoon du gën a mën a jekkali waaw bu fekkee CNG boobu dafa dafa dem ci <laughs> dafa dem ci sa ji ngay caricaturer toujours mu tuddati Mbaye Ndiaye <laughs> dégg nañ li mu wax ci Ousmane Sonko euh, ci Khalifa Sall dafa ni dan ko woo ñëwul ñun dañuy politique yoon kenn du ko politiquer. Mhm. dama la woo ñëwoo bokk ma ak yow conviction bokk ma ak projet. bokku nu programme Sénégal la nu bokk. ñun Pastef dañ ni képp ku ñuy àndal ñetti conditions yi moo tax ñu ànd ak yow. mooy ban ak ban kuy respecter yoon. Mhm. ak règlement yi ci dëkk bi. Mhm. nga am ja même diagnostic que ñun. maanaam xam ne dëkk bi ñu bokk gis-gis ci métituwaayu dëkk bi. ak bi ci des moom mooy intérêt Sénégal kese soxal la. mais mën ngeen a bañ bokk ay angle de vision intéret mi nga xam yow noonu nga jàpp ni mooy intérêt Sénégal ñoom mën nañ jàpp ni leneen mooy intérêt Sénégal. intérêt intérêt Sénégal benn rek la mën nekk. muy commune vouloir de vie en commune en communauté. mënul nekk beneen cest dafa am loo xamee ni Sango Diop amul laam-laamee. Hmm. Euh, maanaam bopp du yenu mais lu xam na lu mu aatan hmm. maanaam nanu delloo si xel yi Macky Sall sunu président de la République laay ñaan. mu delloo si xel yi. Mm. Euh, euh, li ngay wax nii man pour man sa discours bi dafa xaw a contradictoire un mm-hmm. peu parce que yaa ngi naan ñun ñun ñun Pastef ki nuy àndal mooy ki respecté yoon ki trois euh, yi nga lim noonu. Mm-hmm. mais tey jii pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays. Mm-hmm. est-ce que mënul dem wuy ji Sa Ndiogou junj na ko sànq que ni. Euh, toutes les preuves son avec lui donc pourquoi mënul dem li dem parce que yàlla tey mën na ko teg ci bopp réew mi beneen cas bu mel nii am ci est-ce que kooku bu nee du ma wuy ji parce que maa nekk ci dëgg loolu aussi est-ce que ñu ngi koy xalaat waaw ñu ngi koy xalaat parce que wax naa la encore une fois hmm. la bataille elle est juridique bataille bi juridique la hmm. y a pas un seul faisceau d'indice concordant bu tax dossier bi génn gendarmerie sunu constitution dafa consacrer le droit la résistance si les textes de loi les c'est-à-dire li nu relier pour ñu dund ci jàmm bu fekkee kenn ci parti yi nasaxal naka constitution bi dafa la may nga résister loolu rek moo tax Ousmane Sonko ku ko xam-xam ni ko respecté yoon lii dafa def ENA dafa respecté yoon dafa jàng droit xam na luy droit. pour yow lan moo ko poussé ci radicalisation bi mu nekk nii parce que man damay gis nit ku sës koo xam ne euh, comme li ñuy faral di wax sunu réew mooy lii bu mu ko naree dund deewute ko moomu ko gënal. lan moo ko yóbbu ci niveau bi parce que niveau bi daa am lu ci yóbbu nit ko waaw niveau bi. Hmm. du ngeen ko natt ci Ousmane Sonko xam nga niveau bu fu ngeen koy natt. Hmm. ñun ay sénégalais lan dañoo am histoire dañoo am ay maam yu jàmbaar. gis nga Jolof ba mu bëggee noot Kayoor xale bu ndaw moo jóg. Hmm? jaamaarloo ba ñu ba ba Jolof am ba Kayoor ajoor ajoor yi am seen liberté ñun dafa am deret bu daw ci ñun ñun tubaab bi noot nanu dañu sunu maam yi dañoo jaamaarloog tubaab yi gis nga loolu nit nit boo ko poussé jusqu'à ses derniers retranchements loolu rek moo waral Ousmane Sonko instinct de survie am lay dund nii voilà Ousmane Sonko loolu rek lay dund du yoon mbir yi dootul affaire yoon parce que vraiment bu nu waxee yoon rek yoon amuñoo ak moom problème que la loi soit dite que les processus de de de juridique ñu respecté que loolu la rek Ousmane Sonko suba bu nekkee à la tête du pays. mais bu bu commencé teg kenn lu ludul yoon ñun ñoo jóg ni ko mukk dañu ànd ak yow àndu nawle lan moo tere ñi ànd ak sunu président Macky sàll mais si sunu sunu sëriñ yi ñaan nan ka sunu sëriñ yi tamit ñoom seen der la ñuy toog yàlla baaxe leen buñ la woowee ni la tegal lii ci suuf lii dafa jëmalul réew kanam dafa ñaaw troisième millénaire boo demee France actuellement école primaire xam nga lu fay jàng le robotisme appliqué à l'astronomie ñun histoire de culotte la la nguur gi di lijjanti loolu rafetul sunu der rafetul sunuy doom rafetul sunuy xale léegi bu weesoo taxawaay bi ca jigéen soor man dama gis ne da nalaw ci lu bari depuis mars 2021 gars yi da leen nalawal 300 personnes ci kaso bi kenn déggul Pastef kenn gisu ko ñu dem ba tey ji yóbbu seen dernier retranchement ak seen cadre yi nu jàpp ak yooyu est-ce que nekkul ni tey ji rapport de sorte tey da ngeen ko perte. déedéet mukk Sonko euh, sunu parti. parce que bu ñu ko perte woon est-ce que dina daw dem Ziguinchor. non du daw dem Ziguinchor Ziguinchor dafa am ay responsabilité askan bi moo ko dénk askan bi moo ko dénk te moom balaa muy teg programme bi kenn kenn programmé wul woon Adji Sarr fan ngeen gis persécution buy Ousmane di dund kenn ci ku ni ànd naa ak Macky Sall dund ko. ci loolu lan koy woo mais àndul ak Macky Sall dafa am projet pour sénégalais yi loolu la rek mooy différence bi différence bi benn la rek euh, xale yi ngay wax mais un pool d'avocats s'occupe de leur cas kenn mësul abandonné kenn un pool d'avocats s'occupe au cas par cas am na sànq paradoxe bi dëkk doon wax man la ma koy jàng ci sa wax mooy euh, maanaam bu dee ni mbir mi mbiri politique la li Abdoulaye Wade doon wax politique moo koy réglé mais tey ji boo nee ay pôle avocat ne ñi ngi taxaw seen li maanaam da daa am foo xam ne da ngeen fay nangul yoon fii ngeen fay bañal yoon alors ko la justice moom de munul balance la rek munul munoo ko nangul fii di ko bañal fii. waaw xam nga xam xam nga tamit munoo munoo ma woo ni kaay nu waxtaan. Hmm. ma légaliser la ci biir waxtaan bi lu dul yoon. sa troisième candidature. parce que yaa nekk position de pouvoir position de pouvoir du nguur ñu nekkatuñu ci nguur ñu ngi ci bànqaasu nekkinu askan bi. ndi nguuru dafa yi parce que tout simplement texte de loi dafay gérer un dëkk Sonko mënul suba di teg nit ñi lu dul inju lu dul justice lu dul injustice loolu ñemewu ko ñun ñi ànd ak moom dañ koy taxaw dénoncer ko mais sunu le le le président de Africa Jom Center Alioune Tine ki est le ki est un personnage boo xamee ni le plus neutre et avisé bu demee ba jël position ci Sénégal ni muy doxee nga xamee ni ñu sommes en danger Macky Sall daf nu digal lu digal woon lii daf nu bett daf nu bett daal mais du caaginu li ñuy bañ tey moom la ñuy nangu suba jus injustice bokkul ak justice constitution dafa maye bu buñ la tegee injustice may na la nga résister voilà donc ñun loolu lañ ci xam. am na beneen problème. bu am boo xam ne ñu bari duñ ko wax. waaw mooy yéen ñi nekk cadre yi. nekk ci administration di liggéey nguur gi. problème yooyu yan la. waaw problème mu persécution li Ousmane di dund à grande échelle moom la dund ñun à bas échelle. te kay muñ am ay waajur yu ñuy encouragé di nu teg ci yoonu dëgg ni heure bu ngeen wàccee dëgg yàlla dañ na ci yéen ñu koy dund ak mesure ñu koy dund. ak gëm yàlla ñu ni persécuter sunu lieu de travail way di ñu persécuter sunu lieu de travail di fouiner suñuy vie en fouinant notre vie privée en nous donnant des demandes d'explication sur nos vies privées sans waxuma la raison sax preuve sans preuve mais qu'est-ce que sa a seen vie privée ak seen vie professionnelle lu leen liyee ba ñu leen di jox ay demande d'explication mais xam nga boo njortee ni waaw ça n'a rien moom laa lay wax Sandio ki ngay caricaturer lu mu tuddati mbay Ndiaye hmm. lu mu wax ci télé yi xam nga boo demee bëni dan la woo nga ñëw ci ñun nekkoo ci dañuy jaamaarloog yow ci politique loolu la wax loolu la wax xalifa Sall hmm. loolu vidéo yaa ngi fi ñëpp a ngi koy. parlant de Khalifa mhm. yéen aussi ñu ngi bay bayal loo xamante ni rafetul jekkul. Mhm. gis naa keroog ci ah. non man damay laaj xaw ma kii lu muy def. damay laaj sama laaj xaw ma kii lu muy def man damay laaj. Mhm. Euh, ci seen rassemblement ba mujj bi. gis naa ñu hué. ku mel ni xalifa Sall uyee ku mel ni Pape Djibril Fall ci ñoo xamante ni ñoo ànd même su fekkee barte def na ay sorties am Khalifa n'est en rien concerné wala. Mhm, loolu est-ce que c'est normal ñun rafetlu wuñ ko. Euh, par exemple la psychologie des foules dafa am. Hmm. maanaam Sonko dafa inauguré ère bu bees. ère bu bees bi mu inauguré moom mooy maanaam euh, don de soi xam nga la plupart des jeunes bu nu wootee ñun benn cagnotte dañ ciy participer xam naa lool da leen yóbbu ba nu ba nu defa ni ñoom ils ont. le droit de dérouler ñoom lépp lu nu sentir émotion lañ ci ëpp di demee mais maa leen di woo ci ñu déggal sunu leader Ousmane Sonko parce que bala jëloon na ay matukaayam balaay boobu ni leen bu leen uyee kenn ku nga xamee ni ci ñun la bokk voilà ñun rafetlu rafetlu wun ko ñun ñi ngi fa woon uyee wuñu mais wax dëgg yàlla fekke nañu ba ñuy uyee jëm nañu mais vraiment la foule est kenn mënu ko woon maîtriser Ah, la ngay tëjee ban message. Euh, voilà di ñaanal Sénégal la yenent yàlla Ibrahima amoon ci sunu borom ci suuratul anbiya mu koy wax ba muy ban ko sànnee ca safara sa mu ne euh, yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima ñu ñaan sunu borom. Euh, kun boobu mu jëfandikoo mu jëfandikoo Sénégal pour Ousmane Sonko non seulement am jàmm patriote yi am jàmm Sénégal am jàmm parce fekk jàmmaluñu Ousmane Sonko ci guute rek la ñuy toll parce que dañ ko tooñ yàlla du ànd ak kuy tooñ. jërëjëf je vous remercie. jërëjëf almaami Ibrahima almaami Ndiaye ah. di la jaajëfal bu baax a baax di fàttali ni mi ngi ci santé bi xam ne boo ci nekk jot day manqué. mais di la jaajëfal bu baax a baax a baax di la gërëm nga bokk ci cadre Pastef yi kon di la ñaanal jàmm rek di am mbégte nag si sa teewaay. parce que jot gi mayewu ko kon ajarutu kàddu gaango merci beaucoup Omar Bun Khatab Gueye ñu remercier également sa invité di ko jaajëfal ci disponibilité bu baax a baax